waaye nu wax itam nag ne élection bi moom bàyyee ko Macky Sall duñu ko def waaw dina ko dina nu ko séq ak moom diggaale ko ak moom ba dara ñu ca yéen lu ca tukkee itam ñu xam ko ah ci biir loolu nag la ñuy waxtaane nu nuy def ci candidat yi ñu ne kon léegi nañu jàppale Idrissa Seck li tax ñuy jàppale Idrissa Seck itam jafewut a xam dañu wax ne moom day xam na pouvoir ndax nekkoon na ci xolu pouvoir kon xam na li ci di ay euh, maanaam ay force am loo xam ne euh, euh, xëy na luy mën a jëmale kanam la mais xam na itam ci li nekk ci pouvoir luy mën a gàllankoor ndax da ko dund ba mu jógee ci pouvoir it mu dem ci opposition fekk nekkoon na lu jiitu loolu ci opposition kon am na lu mu jàngat ci jaar-jaar yooyu am na lu mu ci jàngate ci moom ci boppam jëmmi boppam ay melokaanam ak i jikkoom waaye jàng na ci itam wóor na ma e, jikko ak melokaanu sénégalais yi itam kon maanaam am réewam ak waa réewam e, ba tax na nu wax ne ku mel noonu war naa mën a suñu ko joxee réew mi lii réew mi laaj tey fii nii xam na ko te war na koo mën a doxal nu wax ne gis nañu ne njiit yu bare bare bare ci euh, euh, politique bi fii ci senegal ñu ngi tey jii di ànd ak Idrissa Seck di jàppale Idrissa Seck loolu itam te ñoo ñooñu ànd ak moom xamante nañu bu baax a baax a baax ak moom xam nañu li réew mi laaj li ñor tey ci réew mi kon bu ñu àndandoo yaakaar nañu ne bu Idrissa Seck jotoon tey ci réew mi nii Macky Sall def bërki démb ñépp jàppale ko mu amoon vingt six pour cent rek rek rek ñu jàppale ko ba mu am soixante cinq pour cent gars yi jaar ca ginnaaw ne ko yow la ñu fal defal lu la neex lii kat moo ko sànk moonu sànk itam nag ndax mooy nekk ci bopp réew mi